di amal ci talaata bi. voilà li nga xamante ne euh, jot nañ ko ci euh, jàpp rek Amina bokk na ci li nga xamante ne moo di emploi des jeunes. parce que xam nga dañu nekk ci contexte bi nga xamante ne jeunes yi ñu ngi dugg ci gaal gi di ñàkk seen bakkan ainsi de suite ainsi de suite moo tax dama ne conseil des ministres bu ñu ko waxoon commencement ba fin rek te tudduñ ci li nga xamante ne moo di euh, emploi des jeunes rek mën naa ne dafay faussé li nga xamante ne moo di contexte bi et li nga xamante ne moo di emploi des jeunes boobu dafa nekk socle boo xamante ne mën naa ne moo mën naa téye réew mi parce que dañu am jeunesse dañu am population boo xam ne dafa jeune donc jeunesse boobu bi nga li nga xam ne bëgg na ko ci réew bu ko amul dafay dem jéggaane ko ci beneen réew mais nag jéggaane ci beneen réew ban façon la koy jéggaane loolu mooy li nga xam ne euh, moo di euh, problème bi bu loolu weesoo mbirum éducation ka yaakaar naa lii di justice éducation santé nekk na mbir yoo xam ne lu am am solo la ci dëkk te yaakaar naa jeunesse boo xam ne bëgg nga ko wala boo bëggee jeunesse boo xam ne euh, jeunesse bu euh, am jàng la wala jeunesse boo xam ne bu éveillé la éducation bi da nga koy mettre au cœur ci li nga xam ne moo di sa ay programme parce que dañ doon faral ak di gis euh, contexte ubbi tey jàng tey ay wax la doon doon mais du nekk loo xam ne dañ koy réaliser wala du nekk loo xam ne dañ koy gis que da nga daan gis bu école tijji dina am ay weer presque wala ay euh, jour ñu doog a commencé nga xam ne moo di jàng parfois école yi nga xamante ne ay nit ñoo ci dëkk ndax nawet beeg mënd beeg li ni mel donc bu fekkente ne moom njiitu réew mi jën la ndogal ne dinañu euh, mettre. tout en œuvre pour li nga xamante ne mooy bu njàng mi commencé wala bu école tijjee rek automatiquement ñu jàng dafay nekk yoo xamante ne euh, yu am solo gis nañ tamit mu wax ci li nga xamante ne moo di mbay mi dama koy faral di wax da fois bu ñu gisee li nga xamante ne moo di conseil des ministres dañuy gis ne à chaque fois mbirum da ciy daal di ñëwaat nekk na bi moo ne lu ama am solo la euh, parce que daf ñuy faral ñun di négliger benn affaire muy mbay mi te yaakaar naa ne bay du dundee dara dara gënu ko te ñun Sénégal yàlla may ñu li nga xamante ne moo di suuf am nañu ay baykat te pourquoi pas li nga xam ne ñun dañ koy jigaane ci àll bi muy cher di métti taxi yeeg loolu yëpp dañu ci fekk pourquoi pas ñu jël li nga xam te ne moo di yàlla may nañu suuf mi ngi taw mu ne benn 3 mois wala 4 mois pourquoi pas ñu jël mbay moomu mettre ko en valeur pour li nga xamante ne dañ koy jéggaani ñun mën nañ ko bay ci li nga xamante ne euh, moo di euh, suñu réew mi donc ponk yooyu daal laa xamante ne nekk na ponk yoo xamante ne pour man état bi nga xamante ne ñoo fi nekk euh, buñ ko mettre en œuvre jeunesse bi également jàpp ci ndax contexte bi ñu nekk mooy contexte immigration irrégulière donc pour man nañu appuyer waat bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo di jeunesse bi pour que immigration yi mën fi jeex wala fi jeexul boog localement mu mën a wàññeeku mais tamit collaboration yi nga xam ne dañ koy faral di def ci diggante dëkk ak dëkk yi buñ ci def rek par exemple dëkk bi dañuy def collaboration dañuy def benn partenariat boo xam ne dañu ñëw tabaxal ma tali ñu dem non non pour man collaboration Amina dañ ci war a boolewaat li nga xam te ne mooy di mobilité yi cela veut dire que ah, benn sénégalais boo dee dem. tugal mu bañ a nekk problème sénégalais bi nga xam te ne tam day nekk euh, France bu bëggee ñëw fii mu bañ a nekk problème parce que gis da contrairement ak tubaab bi Amina ñoom see bu ñu bëggee dëkk dugg suñu dëkk dañ fiy dëgg léegi pourquoi pas ñun bu ñu bëggee dem benn France wala benn États-Unis mu nekk tout un problème boo xam te sax yan la ciy teg yow da nga naan est ko pour man suñu dirigeant également war nañu bàyyi euh, fois mën nga toog tey jii man ma toog am envie dem vacances pourquoi pas dëkk bu ma bëgg a dem ba dem fa sans problème mais day nekk problème yoo xam te ne finalement yow du la ko jaral et moo tax pour man. mais côté du Sénégalais yi ñoo wane loo xamante ni mënuñu leen ko yombalal parce que tey Euh, buñ ne ubbil nañ leen ko yombalal ko doo gis ne bu boobaa jeunes yëpp dinañu daw dem seen yoon parce que am na ñoo xamante ni dañoo am complexe géographique. loolu dëgg la mais Amina peut-être pour man buñ ko encadrer mbir mi mën na mën na gën a mën na gën a yombee noonu parce que ba fekkente ne tamit côté bi nga waxee buñ jàppee noonu ne duñ ko def mais mën na mi euh, mbëkk mi dafay gën a yokk mm-hmm. parce que ñi nga xamante ne ñooy dem euh, tugal peut-être bu visa yi yomboon wala buñ leen mayoon yenn opportunité peut-être dinañ dugg ci yoon bu légal dugg ci li nga xamante ne moo di gaal gi te gaal yaakaar naa ne ay risque dong Mhm. Mhm. Euh, honorable merci euh, euh, loo jàngatee communiqué des ministres bi ñu amee dem en urgence. waaw xam nga communiqué bi moom dafa riche li tax ma ne dafa riche mooy président de la république démb ci conseil des ministres bi ay kàddoom ba mu fa jibee boo ca toftalee kàddu premier ministre bi. presque dafa def revue bàyyiwuñu daanaka benn secteur ginnaaw bi ñuy jaalee ñu dee ci tali bi ak géej gi dafa préciser mm. géej gi ak ak tali bu ko defee nag la cay toftalu état dara du ni kët mm. rek nga wax président de la république bokkul ak maanaam euh, man mi toog nii sama kër lu ne teel ma ne dama na balaa maa def dara naam dinaa jaale te loolu la def ci conseil des ministres bi deuil national danañ ko ca toftal waa wala déet nañ toog ñu xaar hmm. ñeenti néew ñoo génnoon ñu génnewaat yeneen cinq démb la ca génn yëpp ba tey gars yi ña nga ca koor ya mu jóge bitim réew tukki ñëw yem ci bu ko defee nag man jàpp naa ne état ah bu dee mës nañ laa dénk xaw ma nag bu ñu la mësul dénk dégg loolu hmm. doo tëb rek di wax soo si xam nga la gestion publique dafa doy waar. l' administration soose dafa doy waar. yenn saa yow da ngay bëgg a def lii lu tooti wala article nangam alinéa nangam. teree laa def lii. Ah, waaw benn affaire bu ndaw lu tuuti. gars yi ne waa mais gars ñii tamit gars yi trois jours yi nii gars fekk dañ la wax ne yow lañ dénk lépp lu jëm ci loi wu dëkk bi kon yow waroo koo violer dëgg loolu dëgg waaye man pour man la ca nekkoon farata def na ko wan sénégalais yi ne mbir mi yëg naa ko ba pare naqarlu naa ko jaale naa ña deele léegi nag yeneen ya ca topp yëpp état après à la kulli alin mel nii mënul am ci réew soose te te président de la république wala premier ministre am toog na ñun su ñoo nekku ci te ñu doon wax ni gars yi seen yoon nekku ci mépris lañ ca wane conseil des ministres bi démentir na leen wax na ci affaire u emploi des jeunes dafa collé ak lii soo seetloo ci communiqué bi feeñ na ca dellu soit na tamit ci ouverture classe yi ñaari conseil interministériel moom moo am ñu koy waajal. Mhm. bu njëkk bi mooy rentrée scolaire. soo se gis nga fulla ak fayda bi Ousmane Sonko wane ci affaire état civil yi. ak examen yi su ko gouvernement bi defaatee ubbi tey jàng am. Amina mbir mi volonté politique dong la taxaw nga ni képp koo xamante ni nii dañ koo naral lor. ndax kayitu juddu moo tax du def BFM moo tax du def bac moo tax du def entrée en sixième booy nañ def entrée en sixième ba pare en même temps ñuy lijjante wàll seeni kayit mais kenn du leen xañ examen bi. Mm-hmm. taamu ñu juddu ba ñu juddoo am une semaine wala am deux mois nekkul na ñoom ñoo doon dem wutali seen bopp. Mm-hmm. kayitu juddu. ils ne sont pas les responsables. dañuy responsable. Mm-hmm. bébé nooy demee état civil ba. kon benn duñ ci dara ñaar ñu wutal leen kayit tamit ba pare. ñu dem ba ci biir ñu ne la yow sa kayit bi ndeke dañ koo jaay diw. Hmm. Ousmane Sonko wane fa ne xoolal booy kaccat leen ca hmm. duñ ci dara benn booy demul jaay numéro extrait de naissance hmm. ñoom ils sont victimes mais pas responsables par force dañuy examen. waa léegi imagine léegi soose boo amul woon premier ministre bu ne par force <laughs> par force day am fu mu baax mm-hmm. waaw booy nu ñuy examen waaw perte mm-hmm. non seen dossier il faut qu'il y ait un extrait de naissance te mooy sa identité